ñoo ngi leen di ziar yéen ñi safoo ak di seetaan sunu site bu mag bi di Albadawiya TV tey nag ñu dikkaat ak yéen ci fàttali bis bi di waxtaane leneen lu bees loo xamante ni ràññeeku nañ ko ci àdduna kàpp rawatina euh, sunu réew yi di Afrique waaye surtout nag sunu dëkk bi di Sénégal te mooy sàcc ñu koy wax vol càcc di nekk loo xamante ni lu ràññeeku la sunum réew ci sàcc goo xamante ay anam yu fasantikoo yoo xamante ni yu wuute la ñuy ci sàcc gi léeg nga gis ko sàcc ganaar ñu tuddee ko voleur sànni ko ci kaso bi ay ati ati at nga gis koo xamante ni day sàcc ay milliards ci nguur gi ñu tuddee ko détournement des biens communs ba tax dañ koy bàyyi mu génn may ko liberté provisoire nga gis ni ñaari façon sàcc yi amul benn yoon ak wute si diggante seen diggante ñoom ñaar ba tax nit ñi man di posé wu ay question ki sàcc milliards ak ki sàcc ganaar kon kan moo tane mujj yàgg bëgg lu yomb gi di way ba nit ñi di dem di dugg ci politique ngir di man ay détournement xaalis bu baree baree baree bari ngir mën a dundal seen àdduna ci riba ak tàppale ak i wor ak lekk lu haram ci la ñu dëkkee te xanaa dañoo fàtte ni borom bi subhanahu wa taala waxoon na ci xadisul xudsi nii kullukum raayi wa kullukum masulun an yi ku ne ab sàmm nga sàmm bu ne ëllëg des na la laaj naka nga sàmme woon te càcc googu ñuy sàcc sunu alalum réew mooy tax sunum réew di dellu te ginnaaw saa su ne mooy tax sunum réew du mën a nekk ci réew yu développé yi te réew yu développé yépp dañuy araamal seen biir li nga xamante ni mooy sàcc suñu état yi di sukkandiku ci njàngaleem tubaab bi de suur di ci gouverner te njàngale moomu mooy njàngale mi leen di war ba tax duñu mën a def leen loo xamante ni lu méngoo ak suñu aada ak sunu cosaan lay doon méngoo sunu aada ak sunu cosaan bala ñu koo def dañoo war a ànd ak gëm-gëmu bopp gëm-gëmu bopp bi mooy lan mooy fexe fex suñuy ndaw nekk ay nit ñoo xamante ni ñu am détermination daal ndaw ñi nekk ñu am formation ci ab liggéey ba tax sàcc ñi génne ko seenum xel bëgg lu yomb ak i tappale ñi génne ko seenum xel tayel ak ñàkk fulla ak yambare ak def loo xamante ni leer na leen ni ay duma ak i daani ëllëg rek li ñu déer ñi génne ko ci fas yéene liggéey ngir réew mi nekk ci réew yi nga xamante ni moom lañ gën a yaakaar ci àdduna bi loolu nag balaa mën a am mooy état bu Sénégal day teg loxo ay ndawam teg loxo ay ñi nga xamante ni ñooy xaleem waaye surtout système éducatif bi mu fexe ba nit ñi xam seen bopp jàngaat ngir gën a xam seen réew jàngaat ngir gën a xam seen mag réew mooy tax sunu réew ëllëg nekk ci réew yi nga xamante ni moom lañ gën a teg ci kanam am càcc nag niñ koy faral di waxee nit ki day sàcc ganaar ñu tëj ci koso bi kii sàcc ay milliards ñu bàyyi ko ndax ki sàcc ay ganaar su génnee du ne kon naa bàyyi sàcc ganaar te dem sàcc ji ay milliards loolu nag luy posé wul di laaj suñuy xel ñun ñi nga xamante ni ñu ñooy analytique yi ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy doomi réew mi ndax dañuy bàyyi état bi di continuer ku sàcc milliards ñu génnee la ku sàcc ay ganaar ñu tëj la ci kaso ñi ñu tëj ci kaso yi te defuñu lu dul yoon ñi ñu tëj ci kaso yi te nga xam dañ leen a tooñ jaay leen doole tëj leen ci kaso yi bari na kon na état jëlaat ay mesures bu baax a baax ci kaso yi ngir xool ñi nga xamante dañ leen a tëj tooñ mu génn leen ñi nga xamante ne dañoo tooñ ñu tëj leen ñu bàyyi leen ca kaso yi wala ñu at leen ci atin woo xamante ni gaaw la ñi deful dara ñu leen di tuumaal ñu bara xool bu baax a baax seen i dossier naka lañ koy saytoo ba nga xamante ni dina mucc ay réew mi am justice boo xamante ni bu démocrate lay doon justice boo xamante ni bu ñëpp bàyyi xel lay doon ba kenn dootu defati ak njaaxum wala ak mbuuj njaat ci li nga xamante ni mooy alalu réew mi li leen la indi ci fàttali bis bi jërë ngeen jëf yéen ñi safoo ak di seetaan seen seen bu mag bii di Al Badawiya TV